bu jamono yakko fokk nu ci lu lu bi ci système la système anu ko système dem ba bu ca man préféré offrir sama médiation système bi ak principe ndax nous nak système bi rek ci nek

ko jafal pendant des siècles ba système bi dema dema dem ba defen mo bind aduna mo mom nit ñi deng lu ko neex def ni yalla waxe ni nañu développer planète bi nonu mu jadd ko di def lu ko neex ba xey benn bes rek ni planète bi pollution bi ëpp na lo ci man te moko ko ba nopi kat ñew ni la pollution bi ëpp na ko ah? ko jaadul